ci doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ñeent ñoo xam ne si nii jëlee nañ ci ay gaañu gaañu loolu mooy bilan bi tukkee ci accident bi am foofu ca yoof APEXI ci wetu centre aéré BCEAO muy ab camion boo xamante nii dafa daal di saaraan daal di daal ci ay nit yu newoon ci wet ga waaye tamit daal di yéeg ci benn taxi boo xamante ni tamit mu ngi yemoon ay nit ñaar ci ñu nekkoon ca taxi ba daal dinañ ñàkk seen i bakkan sapeur pompier nag amoon ay jafe loolu ngir génn ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci taxi bi Euh, foofu ci biir taxi bi. non non oto booy bi sama la ko mo trois ko taxi bele da ko la